tout tout tout tout à fait laaj bu am solo euh, ma ma ma ma la ciy gërëm ndax damay jox ma fàttali Sénégalais yi fàttali nag ku xamoon mbir lañ koy def nekkul xamal fàttali la jéego yu am solo yi nga xam ni ci ayu président Macky Sall benn président non seulement benn président mosu ko fay def waaye benn mësta mosuma xalaat ne benn président dina def mel ni li président Macky def ci sous secteur horticulture horticulture moom mbéyum lëjum fleurs agrémentent vos plantes ornementales. Le mudeff, nous y n'aimons qui durant le dernier, durant le dernier trimestre du dernier, a gagné 1500 tonnes de fruits et légumes. Mais 640 000 tonnes, nein ça va là, 905 000 tonnes. Durant le dernier trimestre du dernier, a gagné 1000 tonnes qui les a gagnés à fruits. C'est 2012.

Euh, pour jox la preuve fukki weer ci ñaar fukk ci fukk ak ñaar communauté Sénégal yi dundé ma indi ko ci sa question bi moy tabaski deug man na yan ci yalla yóbbu ak jàmm pomme de terre bu fi way xewlo soble bu fi way xewlo exactement fi lañu ñu na ngeen japp né fi bu quoi 3 à 4 ou 5 mois après tabaski kon xam nga waxtu ma tabaski lu fi waay xewloo ci soble xewloo ko ci pomme de terre fii la ñore. tout à fait parce que boo déggee mu daan cher yenn seedaay maanaam muy xabaabal c'est parce que dañ ko doon par exemple bu ko importer la parce que li nga importer munoo fixer prix bi lu dul bu yegg see port ndax li nga ko jëndee foofa mënoo ci wàññi dara lim la dikk ci wàllu transport munoo ci wàññi dara kon bu ñu exonéré yu bëri it comme ni ko nguur gi defee pour yombalal la nga dugal ko. lële moom ñun amuñ ci contrôle li nga ko jëndee foofu ak li nga ko indee ñaare yi boo ko boolee loolu kenn mënu ko waaj mu des nag li nga ci war a teg muy sa bénéfice loolu bu dee euh, njëg la fële ak transport bi dafa xaabaabal dèjà waroon na tolloog li nga ko waroon a jëndee bu doon fii la ñoree nga bëgg cee teg sa bénéfice nooy def ba du seer day seer waaye bu dee fii la ñoree war a jógee vallée du fleuve ñëw fii wala mu jóge ñaay ñëw ci marché bi marché d'intérêt national c'est l'occasion ñu féliciter euh, monsieur Mbaye Euh, directeur général bu marché d'intérêt national bu jam ñaajo ci liggéey bu am solo bu muy def ci yombal nit ñi njënd ak njaay lëggum bu julli tabaski wala korité dikkee te loolu it di ci santaan ak président Macky Sall la ci euh, taxawal bu mu taxawal maison xaw ma euh, marché d'intérêt national ak garde des gros porteurs loolu moo tax loolu mën a am kon maa ngi doon wax ne kon jéego yooyu jéego yu yéeme la kon légume dina am dina baax te du seer ci tabaski bi ñu dëgmal te loolu ñu war a sant yàlla la te luñ ca am nañ ne jaarama président Macky Sall gi mooy kaddu d'abord euh, appel maanaam woote waat jàmm woote waat dal ndax loolu maa ngi fàttali ni bu doon commerce la moo nekkoon suñu fond de commerce bu doon alal la euh, ñu koy wax ressource ci rew yi am pétrole yew yi am or yow yi am bauxite rew yi am manganèse ak yu ni mel ñun suñu or ak suñu pétrole fi Sénégal jamm joj la ma sa doon ba ñu du Sénégal un pays de dialogue fi jalok mo mas di fi defar kon mangi ngi woote ci jàmm waye maa ngi woote ci dialog dialog moy wax tan nga wax jox ma ma wax jox la ñu tànn la ci gën déggoo ca jàmm na ñooy kon kaddu tëj bu njëkk bi mooy kàddu woote jàmm ak woote nit ñi ñu wuy ci dialogue pour que la cay génn dalal réew mi ci jàmm beneen kaddu bi kàddu ngërmaane la ak cant jëmale ci yéen waa siwal ko waaye jëm ci seen internet yu limu yi nga xam ne ñoo nar a jël seen temps Euh, toog ci seen saal wala ñoo xam ñu nekk ci seen oto wala ñoo xam fu ñu ne jël quelques minutes ci seen temps bi nga xam ne temps bu jafe la pour déglu ñu ak pour xëy na njort nañ ko jëriñoo li ñu jàpp ci suñu kàddu ne am na njëriñ kon ñooñu amel nañ leen gërëm amee na leen cat jërëjëf man mii maay gërëm di sant ci dalal bi. voilà merci beaucoup Internet, internautes Siweulko TV comme ni ngeen gisee rek tey ñu dalalon ki nga xamante ci modi docteur makumba Diouf nekk directeur de l'horticulture en même temps mu nekk maire de Latmingué waaye tamit nekk coordinateur communal bu APR ak la coalition Benno Bokk Yakar bu fële ca Latmingué voilà ñu leen di remercier bu baax a baax ci tewlu gi nga xamante ci tewlu ngeen ko ñu leen di jaajeufal di leen jox dig dajé ba benen yoon incha